Welcome to the Bilingual School of Excellence, Complex Syncare. Aux parents soucieux d'offrir un avenir radieux à leurs enfants, une seule adresse, le complexe Senker situé à Grand Mbao. Au complexe Senker, les bébés vivent dans un milieu adapté et encadré par des assistantes maternelles. Nous proposons un environnement familial, un milieu sain pour les tout-petits. Nos crèches offrent des conditions stimulantes pour la socialisation des enfants. Nous respectons les normes de sécurité et d'hygiène. Au complexe 12 mois sur 12 avec un système de vidéosurveillance dans l'enceinte de l'établissement pour assurer une sécurité parfaite. Les salles sont climatisées en période de chaleur. Nous recevons les bébés à partir de 2 mois et plus. En cas de pandémie, nous appliquons les mesures barrières avec des séances de lavage des mains obligatoires au gel hydroalcoolique ou au savon et à l'eau pour tout le personnel plusieurs fois par jour et le nettoiement des locaux chaque deux heures à Max 5 heures comprend une garderie pour les enfants de 2 à 3 ans, un préscolaire bilingue, un élémentaire bilingue, un centre de loisirs. L'Institut met l'accent sur la maîtrise de l'anglais, du français, de l'arabe, ainsi que sur l'expérience de la vie, la culture du leadership et le travail d'équipe. Le groupe scolaire Complexe 5 heures est situé à la cité SIDAC de Grand Bao et à Zone B Amitié près de la clinique internationale de Dakar. 93 79 77 110 93 79 complexe Senker vos enfants nos trésors dal leen jaamu ci xibaar yi bokk na ci lu gën a fës lu tukkee ci mbas mi junni doomi aadama ak téeméer ak fukk ak benn la ñu saytu ñeent ñoo ci amee jàngoroy coronavirus bi ñeent itam xamuñu ko leen wàll benn nit moo ca wéer ñaar daal di ci sonn lool kenn ñàkkul bakkanam ci li mi nga xam ne biral nañu ko niki tey ci altine gi dinañu àddu ci faala pay ma faat ñetti doomam ba noppi rek daal di xaru foofe ca Sacré-Cœur 2 niki démb ci dibeer gi waajur wu góoru activiste bi di Guy Marius Sagna rek wu ñu xëyee dinañu ci del si siyaatalu xabaar yi a coowal trafic de passeport diplomatique la ñuy duut baaraam mbër mi di Elton ak koppar gu bari ga mu jëral rek Mamadou Seck ba noppi daal di dem yoonam benn adjudant la ay defkatu ñaawte fa songu door ko rek ba daal jamono ji dafa sonn lool tàggat yaram la ñu koy tëjee ni ñu koy defee saa su ne rek mbokk yi ngeen taaxilu tuuti bàkk ba jip ma daal di leen koy yaatalal mu ngoog bàkk ba jib na nuy naa leen bu baax a baax yéen safoo di ñu teewlu ci Dakar Buzz dal leen jàmm ci xibaar yi mbas mi la ñu koy dooree tey nag si altine gi junni doomi aadama ak téeméer ak fukk ak benn la ñu waa saytu ñeent ñoo ci amee jàngoroy coronavirus bi ñeent itam xamuñu ku leen wàll benn nit moo ca weer ñaar daal di si sonn lool waaye nag kenn ñàkkul bakkanam ci li mi nga xam ne ministère de la santé et de l' action sociale baaxee nañu ko ko rejeté di biral ni daal matul ni ko préfet de Dakar di xamle ah, bu nu sukkandikoo ci mortal tin boobule liste matul te it ah, ngir ñu jël ko faaw mu am ca biir rek juróom juróom ak itam ah, ñaar fukki suppléant ak juróom-ñett kuréelu gëm sa bopp nag respecté wu ñu yoonu article 287 bu code pénal ba ñeel wi lee wàll mandataire ba Bamba Fall guddik ñett jàpp ñeenteeli fan ci weeru novembre gi dafa rek jébbaloon ab dossier wu ñeen fukki titulaire juróom préfet bi di biral ba tey ni daal gëm sa bopp jotoon na notification bu koy xamal ni rejeté nañu liste ma mu ànd ak contre décharge bu ñu jagleel mandataire ba Bamba Fall l'observateur moo ñuy dikkal ci ab feebar bu doy waar buy dal nappkat yi bile wopp nag waxtu wi daaw la feeñoon foofee sa caaroy sur mer ba sax ñu jotoon si rek dal ñu bari si nappkat yi dafa nag delsiwaat ci boobulee gox na muy ràññeekoo di rek ay gët yu tey euh, jooy fu mu toll ay picc ci yaram bi yëpp di métti lool ma nga fa feeñaat nag gannaaw ñibbi si ka ñeenti nappkat yu jëloon gaal gi dem si ndox mi bañ wiññeeku juróom lañu ñu woon sax waaye kii di capitaine ba nga xam ne rek moo di borom gaal gi dara jotu ko ñoom ñeenti ñoo ñooñee nga xam ne rek ñaar lañu ca gën a ràññee di Tafa Diop ak Mama Diop seen yaram ya nag neexul jamono ji ndax dafa fees dell i picc ña ngi leen yóbbu nag ca poste de santé bu Thiaroye sur Mer aljuma gi weesu ba léegi nag boobulee wopp kenn xamagul nag la tudd gannaaw ba cardiologue ba koy saytu demee ca rëbës xool wérgu yaramam rappeur bi di Simon Cook dañu ko rek biraloo ni dafa feebar ba sonn ba tax na du mën a rek nekk ca bërëb boobee di kaso ndax santé mënu koo dékku liberté provisoire kii di àttekat bi mu di nag lu mu lànk daal bañ ba tëdd si suuf ne du ko ko may si noonee la ko cardiologue am bi defalaatee yeneen examen yu gën a yaatu ca prison ba ba ñu jébbalu rapport complémentaire ñeel wér gu yaramam ay avocat wam ñoo ko yóbbu ca bureau magistrat ba yor dossier ba tey nagandiku rek audience ba ca chambre d'accusation ba Sénégal bu ñu demee nag ba fi tudd moddu du ñu ci ñàkk boole ku ci mel ni rek Collé Sow Ardo borom Sira borom soli mode Adama Paris mi fi andi xew-xewu Dakar Fashion Week ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñi la nga xam ne rek fexe nañu woon ba boole lu ni mel ci at mi mu amoon solo ci ay gët yi ñëpp ay mbooloo daan fa daje mu lal woon nag ci fësal wane nañu mëne ci noonu nag la ndem si yàlla Ambroise Gomis taxawalee woon émission boobu doon daw mu duppee woon ko style et mode foofee sax la ñu bari siiwee ku ci mel ni Adja Diallo yaa awa jéy soxna Aydara chouchou ak kii Sala ba si sax ñeneen ndem si yàlla promoteur u agence Mode Harmonie nekkoon it njiital comité wu élection Miss Sénégal taxawaloon na itam ciseau d'or la mu si jublu woon di rek mayub yoon ndaw yooyu di ay styliste tey créé ñu si daan gis seen bopp lool waaye nag at yi ñu weesu yile xeetu ndaje gisatuñu ko fenn way la sax bareetul li ko waral lalu si rek ñàkku koppar nga ñu koy sampe ak itam ñàkk ku leen si gunge maanaam ay sponsor ñu leen financé itam loolee dal sax Marie Mariam Sey borom complexe Chalar ak défilém boobee mu dippee woon soli xam ne rek solidarité ak mode la ëmboon mu def nag li mu mën rek ngir dund ci passion wama bile mu doxal ko nag juróomi at ci ay kàddoom nag amul woon ay sponsor amul woon it ay parrainage si mu jënteeli édition wam ba woon atuma 2015 dépense yi dafa gënoon a yokk dem sax ba ñaar million ak juróom ñeent mu métti lool ci moom ba tax na mënul woon a demal boppam umu si di bokk xalaat bi ak moom tey xam ne naan atum 2013 la bàyyi di organiser ay défilé ndax kat euh, amul woon fu muy liggéeyee te comme ay atelier wu lay di dañu ko tëjoon amul woon fu mu ko defee mu si teg ne daal la ko nguur gi jàppale woon moo taxoon mu am benn terrain bu mu samp foofule daal di koy rek defub atelier def ko école de formation bu yëngu si ñaw ay costume traditionnel ak moderne ak ay parure lu yàggul dara nag dana mën a formé waat ay styliste di organiser ay défilé daal di dolsiwaat ci langue gi Adama Faye du dem ci local yi ñu dëgmal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier 2022 li ko waral di rek liste yooyee nga xam ne mandataire yu bureau goro njiitu réew mi Macky Sall jébbaloon nañu ko autorité administrative yi dañu ko rejeté wéer ko nag ci na seen couleur yi méngoowee ak yu Benno Bokk Yaakaar kenn ci seen ay mandateer moo joxe xabaar wi ci plateau émission jàkkaarloo bi bulletin wu defal sa gox bi nag dafa am couleur jaune ak marron warub fas bu ami laaf te couleur am di marron beige ak boppi fas bi a gannaaw ba mu rafetloo njàmbaxte ak engagement wu candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi ca conseil départemental Koungheul Mayacine Camara mooy woo jigéenu gox boobee ñi rek ñu gunge ko ànd ak moom doon benn te jàppalante si ay kàddoom nag nañu booloo ngir rek Socé Diop John am ndam ngoonuk élection yi ci wàllu commune bi nag amul njàkkare ndax bokk na ci gox yi nga xam ne rek gën nañoo raar te jigéen di ko jiite kon nag nañu def suñu kem kàttan ngir rek chance bi ñu am bañ ñoo rëcc maire sortant militant bi lii la xamal militant yi laata mu leen si tegal naan leen su amee ndam lu baax rek kay naat ndax kat jigéen la ci biir ay góor teg si am na expérience bi ba tax na nañu booloo jàppale ko ngir honoré njiitu réew mi Macky Sall honoré itam seen candidate ñeen élection présidentielle foofee ca Gambie faatu Ba mooy campagnel borom këram dama Baro ànd si nag ak kii di wujjam mu ni ki noonu nag président sortant bi di Adama Baro mën na jafandu bu baax a baax si yi fësal ni daal a gëm naa euh, borom kër sëyu kii di waa ju baax ak Marie Louise deful daal ay weer a ndax kat moom ju baax am a nga takkoon soxna si fecc ca réewu États-Unis def ko ñaareelam weeru juillet bi ñu weesu démb nag ñu jotee xabaar ci réseau sociaux yi ñu xamal di daal Marie Louise mu taaru mile animateur bu siiw bi di di DJ Yves jël na ko soxna ab xabaar wu tiis daal la askan wa yeewoo ca Sacré-Cœur yendoo di beeru démb gi waaj yi ñu naan Falla Paye moo xaru ci anam wu doy waar mu di nag ab médecin Falla dafa ñetti doomam doom yi ba noppi rek daal di xaru euh, mbir maa nga amee ci cabinet wu frère bi mu di rek ab cardiologue ca Sacré Cœur euh, bu nu sukkandikoo nag ci ay xabaar faala soxnaam la joteel euh, waral rek mu sóobu ci jëf yu ni mel police ak gendarmerie teewoon nañu foofee kawteef ba amee ba saytu bërëb ya laata rek ñuy yóbbu néew bi ca morgue ba xabaar ya sa wàccaat yemu rek si ne kii di faala ñetti doomam yemu faata ñax ñaay jigéen la ñu kenn kii di góor daf leen yóbbu nag ci cabinet wu mbay Mbaye Paye ca Sacré Cœur 2 daal di leen piqûre liquide buy rayee ba jamono ji nag lamu leen injecté li liquide ba xamuñu lan la li wóor mooy ne daal takk der yaa ngi si ay tànk yooyee docteur Faala nag ab bataaxal daal la fi bàyyil ma soxnaam Ndeye Awa Diagne di ko faram-fàcceel seen dundin na woon bu njëkk ba ni mu yar faatoo wax ne daal soxnaam si ah, teg na ko ko laata rek ma koy xamal si njeexteel li naan ko ah, yaakaar naa ni nag di nga wax la tax rek sa sëy ah, tas ba nga xamee ni rek convoqué nañu ko moom Barthélémy Diaz ñu si bëri àddu nañu ci doore ci Fou a muy laaj si njëlbeen na lan moo waral mu def fukki at ak itam ndax la ñu ko woolu yemul rek ca la mu féete ndax am na ay jamono njiitu réew mi Macky Sall ba mu nekkee rek ci opposition bi dafa taxawu woon défendre li tax rek ñu koy wëyal te itam jàngat ba mu sàmm mooy ne rek dañu bëgg xamal askan wi ne ki ñu bëgg a sànnil seen carte du nit bu set maanaam criminel la ni ñu ko defee rek ak ñeneen ñi ñu duut baaraam ci wàllu viol ak ci passeport yi lépp rek ngir yàq deru nit ki ba nit ñi rek di am xel ñaar ci moom a malal nag rafetlu wu la benn yoon anam wa ñu koy defee Ousmane Sonko di duut baaraam si njëlbeen justice su Sénégal te leen di yéggee ni daal dara du tee Barthélémy Dias nekk candidat wu Yewwi Askan Wi te it kenn mënu leen tere am ndam ndakaaru gannaaw yàlla lay jàngatam ci convocation Barthélemy bi nag du lenn lu mooy ne rek dafa ñaaw ndax lu toll fukki at nga yorub dossier di lambar lambar yi ba nit ki samp ndëndam nga ne daal danga koy wóolu njiital kuréelu Pastef bi di wax ni daal su ne woon moom mooy Barthélemy Dias du wuy ji du dem fenn ndax booy respecté institution day fekk mu yelloo ko nee na it justice bi amuñu benn personnalité lu mooy rek topp Macky Sall loolu mu joxoñ rek ñu nekk ca war a jeex ci réew mi bu yeboo sax ñu ni ko moom Ousmane Sonko nitu fitna la waaye daal lu ñu si bañu rek moom du ko ci bañ seen diggante ak la Sall la mu xam le ne moo fi des na mu ko dippee moo dina rek nit ki soo ko ëppee doole rey ko waaye dana défendre boppam ndax du nangu ko ko noggantu Ousmane Sonko di woo askan wi yëpp ñu gunge rek Barthélémy Dias ba suwaal ci ne gi ba tribunal ba ndax moo di candidat wu Yewwi Askan Wi te duñu nangu rek dara lu ko gàllankoor APR nag tontu nañu di laaj ci njëlbéen ku mënul liste naka la mënee yor réew di ko méngaleeg ñay wax ne daal dañu leen di komplo way laa naan administration territoriale yi faruñoo ko ñoom ba tax na daal ku jug rek di dem déposer dafa am foo war a jaar ñoom nag waa kuréelu Benno la ñuy def da a soxal ku jegi nag la tax seen ay liste matul moo di ne askan wi dañoo xam bu baax li gën si ñoom mu di Benno Bokk Yaakaar nee nañu nag kii di Khalifa Babacar Sall la mu def mooy ne lekkuma ci cere ji rek naa ci xëpp suuf gannaaw ba ñu ko joxee rek caisse d'avance yi mu def ci la ko neex ba noppi ni justice dootu fi amati yoon ñoom waa Benno Bokk Yaakaar nag li fi amoon weeru mars dootu ñu ko nangu gannaaw loolu nag njiital kuréelu Pastef bi Ousmane Sonko di fee mu njiital mi Macky Sall gannaaw ab takk der bu siwilu bu ñu jàpp kooku le nag da leen doon topp ba si point de presse ba ñu doon def ñeel liste ya ñu rejeté ci vidéo am ba mu biral rek ci réseaux sociaux yi Ousmane Sonko di si xam ne ni takk der boobee ña ngi ko yóbbu ca gendarmerie bu Foire takk der ba daf ne leen rek police su jëppal lay euh, liggéeyee euh, jiital kuréelu Pastef bii di si teg ni daal ay jumtukaayu espionnage euh, fekk nañu ko ci benn woto police bu ne woon rek fu soriwul dara këram police su caaroy teg na loxo gaaw bi bu fukki waxtoo ko juróom-ñeent jotee gannaaw marax gi sëriñu daara bii di wuyoo ci turu ceex Diawo la ñu koy toppee yemook rek traitement inhumain et dégradant violence et voies de fait ci kenn ci ay taalibee ma di Babacar toll ci fukki at moo dajeeg gune gi ci mbedd mi muy jooy tànk yaak loxo ya si anam wu doy waar yërmande daal di koy dugg mu yóbbu taalibe bi ca kër chef de quartier bi ni ko noonu nag mu yeggee ko anam wa mu dajeeg rek gune gi te koy xelal mu yóbbu ko police bi da leen nangu na ni daal xam na gune gi ndax foofee lay jàngee ak it la mu ko def waaye daal nee na li ko waral da di rek ni xale bi dafay daw lu bari les échos di ñu xamal ba tey ni daal sëriñ bi ca la mu wax yépp dafa bëggoon delloo gune gi ay waajuram di bér gi ca Guinée Bissau waaye gisatu ko woon gaaru ceeru Petersen la ko mujjee gisee si la ko yóbboo këram takk loxo yi daal di takk tànk yi placé nañu ko nag en garde à vue gannaaw rappeur yooyee di Simon ak Kilifeu ak ita ñaari député ya a Sall ak Boubacar Biaye coowal trafic de visa yëkkatoo nag mu ñeel mbër mii di Elton bu école de lutte Balla Gaye moom nag dafa jëlal juróomi million ak lu a kii di Mamadou Seck mi ñu gën a xam rek ci ëm da ko waxoon daal ni dana ko wutal faux visa canadien ba mu jotee ci koppar ga nag dafa rek dem ci réewu États-Unis bàyyi fi du Seck fi ci Sénégal te itam joxu ko dara coow li nag yemu ci laaj bu tollook ana fan la mbër mi amee cachet wu ministère des affaires étrangères ak it kan moo ko defaral boobule yeewoo tey si altine gi ñeel génn fa dina way jur wu góoru activiste bii di Guy Marius Sagna ñu ko jege loolu ñoo biral bi lee xabaar Dakar Buzz di ko jaalay mbokkam ak it képp kuy njege ñaaleem ak it doomam bii dekk di Guy Marius Sagna ay defkatu ñaawtee fa ñoo song benn adjudant police buy wuyoo ci turu Ibrahima Loum ma nekk ca état major direction bu police de l'air et des frontières mbir maa nga am guddik gaawoo juróom benn jàpp dibéer juróom-ñaareeli fan ci weer wi Ibrahima Loum dafa génnoon rek tàllalay tànkam féexluwaale ca cité Sonatel bu Malika ni ñu ko Les Échos di xamale ni ki noonu nag la ko ab mbooloo wër ci tali route principale bi ña dëkk ca gox ba naka daal di yeeweeku ñu ràññee adjudant bi bëgg koo jëlal la mu yoro ci noonee la ko songee di ko ko dóor te xamuñu sax ni ab takk der la ñu koo sekkal si la wanee ndëgër laay gu mat sëkk moom itam daal di jàmmaarloo ko ñoom daal di xeex yamuñu sa nag ñu dóor ko ab brique daal di daw tasaaroo ci lëndam gi ba nga xam ne ni rek ñu dëkk ca gox baa ngi doon ñëw ngi rek wallu si ko waa këram bi ñu yëgee rek yëf yi daal di koy yéen wu yóbbu rek ca centre national hospitalier bu Pikine féeteek camp militaire parachutiste yu commune Thiaroye jamono ji nag wér gu yaramam doy na waax lool nag ci wayjur wu ne mu fekkee njëriñu doomam ba mu di ko ci teral rek ni ko ñenn nji di waxee lu ni mel nag moo dal yaayu Akon gannaaw frère am bii di Bou Thiam jëndalee yaayam wa kër gu toll ci téeméeri million ci sunu koppar mu di rek mbégte mu nga xam ne nii rek ci image yi ngeen gis sax yaayam daf ci békk ba rek ñamu àndal ñëpp di ko kontaane Dame Mbodj mooy addu ci livre Mouhamed Mbougar Sarr bile di wax ni daal kenn werantewul mën a bindam waaye ci jëfinam la article ba mu dippee rek de purs hommes daf say kañ ngóor jigéen ba noppi di critiquer nga am rek gis-gis bu mu wuteek la mu wax muy wane ni daal ngóor jigéen lu baax la fi ci réew mi daam di ci teg ni daal ngóor jigéen la borom bi gën a sipp ba tax na ci loolee la ñu koy jugé ndax ca biir livre ba def ca nag biral ay pàcc yu muy waxee ni daal anam ya ñuy sëyee daam nag nee na li mu gëm moo di rek dañu ko jël ngir rek ab modèle te it moom dafa gëmul ay prix Goncourt ndax kat du Sugar la mu wax ci livre bi yépp daf ci xas africain yi Mamadou Mouhamed Ndiaye mooy àddu ci kaw ceef gaam Sacré Cœur ñeel Fall Paye ma rek faat ay doomam ba noppi daal di xaru di wax ni daal day bàyyi ba enquête bi sori mu daal di rek gën a yaatal ci mbir mi waaye nag li mu def a moom Fall kenn du ci ànd ak moom a ndax xaru rek moom a ñàkk gëm yàlla la ko jàppee rawatina nag nga faat sa ay doom ndax kat doo rafet rafetle fii te doo baax baaxle fële moom nag xale yi la ca gën a ñeewantal te loolu sax bokk na si li yàq dimanche am muy wayjur yi génnee xale yi ci seen uh, sëy uh, libération lam ñu xamal nag ci bile kawte fa moo dina kii di yaayu xale yi ba mu yegsee fa mbir ma amee dafa def malaise ba ñu uh, ba mu fi bàyyi ni rëccuwul dara ca la mu def a si lu ne rek mu yàq ko soxnaam a dafa ne woon nag ci yoonu tas moom ak soxnaam ñu joxaale woon soxna si gardu xale yi ba ba ñuy rek tënk mbir mi la far li daal di am ab xabaar la jot ñeel Fall Ndiaga chroniqueur ca Sen TV bi moom nag dafa def accident ci autoroute à péage bi mu métti loola ni ngeen koy gisee si image yi Dakar Buzz di ko ñaanal borom bi fëgg boppam ba mu rek mën a dellusiwaat si ay yitteem. tàggat yaram lañu koy ndar keppee ni ñu leen ko waxee woon rek ci bopp bi mbokk yi gaynde Sénégal yi ña nga jamono ji ca Togo ñeel juróomeeli journée éliminatoire coupe du monde 2022 bay dox rek seen digganteeg Togo fukki fa ak benn ci weer wi ñu nekk ñu ràññee ca nag seen doxantu boobee kii di Moustapha Nam Bouna Sarr Cheikh Kouyaté ak Famara Diédhiou ña sa des nag ñi ngi waajal ngir dem Aliou Cissé nag jamono ji ak ña des sa équipe technique bi danañu mën a am rek seen ay njëlbeeni séance d'entraînement ah, mbokk yi lii la ñu di loon tey ci xibaar fii ci Dakar Buzz daañu leen ko toppalaat ci lu ci gën a fës jaa ngeen jëf